ودود كلي أبدا بالود ودامني أدر وكد ودود كلي أبدا بالود ودامني أدر وكد السلام عليكم بوكي تايلا ديبير fukki fan ñett ci weeru tamxarit ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa dëppoo ñaar fukki fan ñaar ci weeru ut ci atum ñaari junni ak nit ak benn fukki fan ñett dafa bokk ci lim yu yi kon tey ci dibéer ji rafetul ci dara ñaanuk bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga gindi ma ñeel li ma wuuteeg dëgg ci sag nammeel yow yaay gindi ko soob jëmee ko ca yoon wu jubba allahuma hdini li maxtalifa fihi min alxaq bi idnik innaka tahdi man tashaau ila siraatin mustaqim xadiisu bi yonente bi salallahu wa sallam nee na aleykum bi qiyaami leyl fa innahu daxbu saalixiina qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa makfaratun lissayiaat wa manhaatun lil ism maa ngi leen di dénk naafile guddi mooy baaxu gaañu baax ña leen jiitu woon moom kat ak jegeñlu la jëm ci seen boroom tey farukaayu ñaawteef tey tee def bàkkaar xadis bi at-Tirmidi moo ko nettali man